بسم الله الرحمن الرحيم سرين bi له لا مختار له دانا فيري أي بيت ci mawaahibun naafi nee nañu dadaa wax in raama ilman fasaaka yuhdaa aw raama gunman fasaaka yuhdaa lahu aw raama zulman wa yurdaa baaxil liqaa'i saabi shaqaa'i siiw na lii bu nu xoolee xam ni mooy li ñuy wax xaddam daa bëgg a wax ni ku sàkku xam-xam ci moom gindiku ku sàkku ci moom alal itam am ko ku koy tooñ nag yàlla alak ko wallahu alam sëriñ tuuba xaada lahu allahu waskur xilaami waxmat kalaami bila malaami walam waxmat nanga aar la ko daan tiree na mu ne bu nu seetloo xam ni xasida moom rek moo ko mën a firi diglewul itam nu di ko firi ndax man jàpp naa ni loolee ma waxoon ci alxuraan am na ci bu wér te moo di prix day soppiku ci weer yi ak bisi ak waxtu yi ku dul xam soppiku googu waroo koy firi te ne nañu itam jamono ju nekk kenn képp mooy xam soppiku googu alxuraan di soppiku ci prix ak jubli gi wallahu alam ñooñu ci nettali juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñaar Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo bi mu santaane kaamil yooyu ñuy jàng bis bu set nee na bu ma leen wanee gannaaw góor mag muy seetaane dana fi ñëw xombe naa leen muy tëñ naa leen ci ñetti waxande waxande mooy gaal yoo xam ni du ko mën a dajji lu mu ko yëngal yëngal du ko mën a dajji lu mën a xew neen ko jàng juróomi yoon kiy bay ak ki jaay ak jënd ak képp kuy liggéey ak lu mu mën a liggéey ci àdduna ba ca nasraan bii lif nasraan yépp ca tugal jàmm jamu mën a am bay daagu di walis mi ngi jóge ci digg bii digg bii jàmmi àdduna ak alaxira jépp fi la jóge na ngeen ko fonk xëy na digg bii mooy kërug njaareem gi wala li ko wër lépp laxoo xitaabi amatal shoshin lada بقعتي التي تنير البلد ظلم ذوي البلاد يقصد إلى غير جهاتي وانتهى لي الإله bu ñu seetee sëriñ bi am na njaareem fukki at ak juróom moo tax bërëb ba am na worma lool sëriñ bi nag du faatu mukk te mel na ni def këram te mi ngi fiy bëgg a am téeméeri at loolu war na noo xamal ni dëkk bi la ñëpp gën a wormaal ci mbooleem dëkk yi ak suufi war warmaal mooy di xool li nga xam ni boo ko doon gis doo ko def nga di ko baña def wallahu alam sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo mas naa wax sëriñ muhammadul mustafa ak sëriñ falilu ci bindkat yi ngeen waaye dama bëgg ngeen di jàng ci sama téere bii kenn ku nekk nay jàng jukki bu rëy lu ngeen am andi ko fii tey dellu ci seenu mbind wér na am na kilifa gu sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo masa wax waxal loo bëgg nu defal la ko mu ni ko mel ni Ibra Faal sëriñ bi ni ko faat na waxal leneen maa ko tànn bu doon dund junni at du laal suuf fa ko yóbbu bu doon yooru di ñëw junni at du laal suuf mu ni ko may ma ma topp ci moom sëriñ bi ni ko defal nanu la ko siiw na ñu ne ci nette bi juróom ñeen fukk bi sëriñ Tuubaa xaadalaw laaw maxtaar loxo fi ñuy jàngi kaamil ci njarim moo ko rëdal boppam ci tànkam ni Ibra Faal sàkketal ma digal bi ba mu noppee mu wax ni moo gën ci àdduna lu fi waay ñaan dajeeg moom siiw na sëriñ Tuubaa xaadalaw laaw maxtaar loxo moo tànnoon lu mat ñaar fukk ak juróom-ñett ñuy jàng juróomi kaamil bis bu set njëkk loolu ñeenti kaamil lañu daan jàng bis bu set bu guddig ajjuma yegsee ñu jàng juróom ñaari kaamil siiw na sëriñ bi bi mu diglee loolu nee na saa borom xamal ni ma ni bis bu ñu xëyee te jànguñu ko asamaan si ak suuf si dana taqaloo ndax borom dénd bi soxla na déndam waaye man la rus li feeg yéen ngi koy jàng adduna du tukki siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo moo daa bind xan mu bi ñuy xan moo jox leen bu yàggee mu jox leen beneen ba mujj moo woo sëriñ ma jëm mu silla radiallahu taala anu jox ko tey siru asir ni ko séddaleel ma ko juróom benn xaaj ba mu ko defee sëriñ bi ni ko ci bii laa di mujj a joxe ab xanmu ci ngeen di jàpp ba yowmal xiyaamatil akbar bu ngeen xëyee ni ngeen yenn ci bunt muy benn xaaj la bëgg a wax ba jant so ngeen door a jàll ma jëmm mu ni mbàkke sëriñ bi ni ko saa borom xamal na ma ni moo moom alxuraan may na ma ko dénk naa la ko moom la sëriñ bi defoon njiital daara ja siiw na sëriñ Tuuba xaada lahoo laaw maxtaara lahoo mas naa boole sëriñ Muxtaar Jaane ak sëriñ Manumbe ni leen na ngeen fasante wólëre ba mel ni sànqal ak ndox siiw na radiallahu taala anhuma sëriñ Manumbe mas na koo binduloo ab kaamil moom sëriñ Muxtaar Jaane radiallahu anhuma mënu koo am mu jaare ko ci Serigne Touba xaadalawoo la maxtaarlawoo ba mu bindal ko ko mu jox ko juróom ñetti fukki dërëmi ngordu ngordu xeetu xaalis la Serigne Muxtaar radiallahu taala di yët Serigne bi xaalis ba dajeeg Serigne Manumbe radiallahu taala mu muy yët Serigne bi kaamil ba Serigne Touba xaadalawoo la maxtaarlawoo ni ko Matar Jaane yaaris gor te dib jullit siiw na sëriñ tuuba xaadalaho law maxtaar laho mas naa wax sëriñ paate xamar radiallahu taala anu boole naa laag ñii te ñooy bindkat yi bu ñu lekkeelu naqari yaa gàddu seen àq daa wax ñooñee bu ngeen lekkee lu leen meexul yéenee gàddu seen xaqi bopp lu ñu leen jox te soxlawu leen ko bàyyi leen ko fa siiw na Sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na Ibra Faal defal na ma loo xam ni kenn mësuma koo defal moo tax ma ni ko cas ak ñi mu àndal ni Mustafa am Mustafa nangu sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama siiw na Sëriñ Fallu radiallahu taala anhu mas naa andil Sëriñ Tuuba xaada lahoo laahu maxtaar lahoo ab kaamil boo xam ni mooy kaamilub fanweer ak ñett ci mu bindal sëriñ bi sëriñ bi foon ko ni ko alxuraan ji mel na ni na ko saa wàcce woon mën naa waat ëppul yeesul sa borom nee na nga bindal ko kaamil bu mel nii mu ni ko yow mën naa laa bindal waaye moom bu ma binduloo damay fay sëriñ bi ni ko demal bind ba mu ko bindee ba andi ko Sëriñ Tuuba xaadaloo law maxtaarloo ni ko mel na ni booba loo bëgg mu fay la ko mu ni ko képp koo xam ni turu Sayxul Xaddiim bu tàbbee ci sam nopp sab xol sedd nga tàbbi aljana ci lu dul hisaab sëriñ bi ni ko ma laaj ko saa borom jug julli ñaari rakkaa ni ko sama borom nee may na la ko mel na yàlla fayal sëriñ Tuuba xaadaloo law maxtaarloo nee na laa mubaddila li kalimatihi ak laa muhaqiba li kali li hukmihi sunu boroom mi ko wax sax génnu ci ba ci génn kenn siiw na ñu ngi ci nettali téeméer bi kon sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaaralawoo mas naa woolu sëriñ Mattaar Jaane ak sëriñ Daam Jaane ak seen ndey soxna Marem Balla ak sëriñ Demba Keba radiallahu taala anhu jox leen akub këll bu def sànqal ak suukar ak dugub ak daqaar ne leen na ngeen ma ci bindal ab kaamil feeg muy sotti bu leen jëfandikoo lu dul lii ma leen jox daa ni mareem balla jiitul yor kayit gi matar topp ci yor suukar si daam topp ci yor daqaar ji demba kebe topp ci yor sànqal si ba ñu noppee ba koy andi dani mareem jiitul mataar topp ci daam topp ci demba kebe topp ci daadi ni demba kebe juddoom ba woon ca jolof laa doon toxal di ko yóbbu mbaakol ni ko yaa mataar jaane ak daam jaane léegi yéen a bokk nday radiallahu taala anhum siiw na yamxu llahu ma yachaau wa yusabit yal na toxal sunu lépp dugal ko ci biiram faww wallahu alam sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaar la mas naa dugg ci biiri jàkka ji gis fa lu mel ni fiili Quraan bi mu sëlmalee wax ni na daa di deñ inni la uhibbu laafilin ba ñu noppee mu wax ni suuf si féete kaw na féete biir siiw am na ku mas a ci sëriñ Tuubaa xaada la laahu maxtaaraloo ni ko wirdu wi ma yoroon dama koy bàyyi am mën naa ko weel fekk na mu yoroon ak kurus sëriñ bi téye ko li yàgg delloo ko ko ni ko boo demee dana wuuteeg ba ma ko yoragul mu wax sëriñ bi ni ko yàgg na ma bëgg a ñëw waaye dañu ma daan gàllankoor sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaraloo ni ko saa suñu ko defee yëg naa ko waaye sa yaalamuuna gaddan manil kadaabu laashir siiw na am na soxna su masa toog ak sëriñ bi xaada lahoo laaw maxtaar lahoo bi mu jugee xaalit bi tasaaroo bari lool mu di ko for bëgg koo dajale waaye du mën a yëkkati benn sëriñ bi dellusi mu ni ko dama ko doon dajale sëriñ bi ni ko mooma dëpp siiw na ñu ngi bi ak ñeent soxna muminatu radiallahu taala hanu bi Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar loxo jóge ci géej gi aw turam da ko àndaale jox ko soxna faati silla radiallahu taala anha te mooy waajuram ni ko nii la ko binde muminatu nga xam ni waaw gi am na xamsatu ci kaw wér na loolu muy kiimaan mooy daanaka amaan na lu fukki at wala lu ko ëpp mu door a gane adduna wallahu aalam fi ñuy jàngi kaamil ci njaareem am na bis Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaarlowoo ñëw ni leen bërëb sàngam ak bërëb sàngam kenn jàngu ko fekk na daa am ku ñu joxoon ab jukki jàngu ko ñu ne ne tey téeméer bi ak juróom benn Sëriñ Abdullahi Jaane radiallahu taala anhu bi sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo nekkee ci géej gi daa mas a julli ci ak ngeer julli yor-yor yoor daa di wax ngeer gi yaay sama sede ci sama jebbalu bu ma faatoo te sëriñ bi dikkul bi sëriñ bi ñëwee muy jebbalu jébbaluwaat sëriñ bi niko. ba ngeen jébbaloo du tey ba ngeen talale seen loxo ca ngeer ga noo ko nangu woon mu daa la laaj sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo ndax mën naa nangul ñiy jébbalu ci moom sëriñ bi ni ko ku jébbalu ci yow nangul ko te digal ko daa di yéemu lool li tax sëriñ bi di yéemu nee nañu moo jébbalu gi ñu tàmbulee jébbalu ci moom te gisu ko tabaayatuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni wa axdimuhu bi lillahi muftarida nega moom sëriñ bi nee bi muy jaayanteeg yonente bi sallallahu taala alayhi wa gisu ko ci ay bëtam ci ap xolam la ko defe wallahu aalam ndax maneef naa jébbalu ci Sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaarloo fi mu ne nii mën naa nekk bu baax waaye ki koy man mooy koo xam ni pas-pasam ak xam-xamam mate na ko ku amul pas-pas bu wér ak xam-xam bu wér bu ànd ak jëfe yaakaar naa du ko man sëriñ bi nag fi ay xasiidaam daanaka ñooy jëmmam ndax boo leen di jàng day daal di tàmbulee ànd ak yow ci jëf yi ak wax yi loo ci gën a sax muy gën a ànd ak yow ci defar la ak yéwénal say mbir doonte gisoo ko man ngaa dem ba boo ko gisoon doo wàññi dara walla nga koy yokk wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaar loxoo bi muy nekk gànnaar daana wax képp kuy wax ni bala ma jébbalu damay dem ba gisee moom boo ñëwee danga nga diglu ba xam da nga dégg keneen ku ma tiim wala déet boo ko déggee jàll siiw na sëriñ Tuubaa xaada lahoo allahu daana wax ci naari seenub laaj ci fequ bennub sëriñ jekku ko waxantumaak wàllug wilaaya siiw na sëriñ daam jaane radiallahu taala anhu moo daan naafilaal soxna yi ca ci ndigalu sëriñ tuuba xaada lahu llahu maxtaara lahoo ñu ci nette téeméer bi ak fukk sëriñ tuuba xaada lahu llahu maxtaara lahoo nee na ku jubagul fudd weesoogul ci moom ku fudd weesoogul ci moom damu weesoogul ci moom siiw na sëriñ Tuubaa xaadala walaaw maxtaar la woo nee na yàlla sunu borom mënee su caa am dara ci lu dul ñaar yoonu jub ak ragal ko bu fekkoon mën naa am du ko wax ci téere bi te moo njëkk ci téere bi alif laam mim saalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin siiw na mas nañoo laaj sëriñ Tuubaa xaadala walaaw maxtaar la woo lislaam ju wóor ak taalibe gu wóor lu ci gën sëriñ bi wax ni benn baat la bu am ñaari firi nit mënta am ak taalibe gu wóor te amul lislaam ju wóor nit mënta am lislaam ju wóor te amul taalibe gu wóor siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaarlawoo nee na aw ay foo ko dégg ñaanal yàlla mu fay ak lu mu la sori sori bul naagu ba jàpp ni mënta agsi fi yow siiw na sëriñ tubaa xaadalawoo laaw maxtaaloo mas naa wax kuy nelaw jógal doo ci xame doo ci ame siiw na am na ko wax ni mas naa gis sëriñ tubaa xaadalawoo law maxtaaloo muy jàpp bi mu agsee ci masaa boppam ba muri kaala ga daa mel ni aw biddiw moo fekk siiw na Amna kou masa gis serin tou ba, khaade le ou la ou makhtar le ou, mou jap ou ban op, nan lam ou do an jap e, mou ye mou serin bine kon. Ngerin lin gen gis ki sema bop, badi che bar ke alou, gen ou len moko gis, nin gen yen semen bop pou lo ba, nou ni lakou yen sema bop. Bouman man wana def, nyari jem mou, kon ma def kon, jen ne jen ne ke fe, di def nou ni yen de def, si ou nan, Sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu maxtaara lahu ca gànnaar mas naa fekk Sëriñ Mbay Jaxate ak Sëriñ Hamzatu Jaxate radiallahu taala ñu toog ci buntu jàkka ji waxtu timis mu ni ana ñii ñaar ñu wax ko ko sëriñ bi ni yéen ñaar ñii dama bëgg ngeen góor góorlu bu baax da ngeen di sama yaari gone yoo xam ni yàlla daa def sama yaakaar ci yéen ma bëgg ngeen góoru góorlu ba bis penc su yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa ne jugal ràmmul ràmmul ma xeet wi yéen ñaar ku jug du aaja may jug sëriñ mbay jaxate radiallahu taala ni ko dimbali nu keroog ba nu dugg ci gaal ma képp kuy bañ ñu seet jëfam koo xam ni dani bala maa dem ñu seet samay jëf nga wacc ko fa te nu dem Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar ni ko yàlla man na ko wér na li andi woon naa lu nuroog moom mel na ni am na tuuti wuute mel na ni bii moo gën a leer te kenn moo dox ci diggante bi ak Sëriñ Mbay Jaxate radiallahu taala anu ki doon nettali nee moo ko dégg ci Sëriñ Mbay Jaxate radiallahu taala anhu wallahu aalam ñu ngi ci nettali téeméer bi ak fukk ak juróom-ñett Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtarlawoo nee na bari na yàq gu seytaane di yàqal jaam bi ak defar bàyyi koo ca goo xam ni seytaane danaan su ma yëgoon bàyyi noona wér na taxabu iblis allasi fiya sabax ab kaahu naadiman wa biliya si abax Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtarlawoo mas nay defarloo sëriñ Amsatu Jaxate radiallahu taala anu attaaya bi mu duggee ci néeg bi gis fi ko toog ci kaw lalub sëriñ bi ferangu laayu kaalaw sol dalli bot loxo yi itam feeñul da koo dugal ci li mu sol ba mu ko joxee ab kaas mu koy xool waaye jëlu ko mu daldi jox sëriñ bi nes tuut mu jug sëriñ bi jug topp ci nes tuut mu del si toog fa koo kee toogoon ni ko hamsatu ki nga doon jox ka xam nga kumu mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko jibril la alayhi salaam te malaika du lekk du naan mu ni ko ko ànd ak yow lu ne ngay gis sëriñ tuuba xaada lahu laaw maxtaar loo ni ko waaw xam nga lu mu doon doxa mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko daa am gan gu wàcc biig ci kër gi aw turam lama doon yet si tur woowu mu ma doon yet si moomu da jekki ba bis boo xam ni aaye na jamono yaa ma koy wax si wér na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo daana bindloo sëriñ Amsatu Jaxate radiallahu taala anhu ay bind bu ñëwee da koy raxas ci ndox jox ko taalube bu mu yeewi naka noonu daana ko jox loo xam ni da naan bind ko li ci ganeen wet gi bu ci sa bat dal weer ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñaar fukk ak benn Sëriñ Tuuba xaada lahoo lahu maxtaar lahoo mas naa wax Cheikh Ibra Fall radiallahu taala anu ndax kër ga ku mata dem kër ma fa mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko ku bàyyi ko ci yow mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko boo demee na nga def la ca war lépp te joxal ma ko ba Babacar mii te bu ko ca dara war wér na Babacar mooy Sëriñ bay Jaxate radiallahu taala anhu wallahu alam Sëriñ Mbay Jaxate radiallahu taala anhu mas nay siyaar si Sëriñ Tuuba xaada lahu lahu maxtaara lahu fekk na am na ñu ko waxal ay wax ci sëriñ bi ba mu ne assalaamu aleykum sëriñ bi ni waaleykum salaam daa jukk ba ca yoonu ñetteel wa mu ni sëriñ bi nga may ma sëriñ Tuuba xaadala wala maxtaaloo ni ngeen may ko mu ni ko mën nañ koo dégg ci nopp te duñ ko dégg mooy duñ ko xam sëriñ bi ni ko bismillahi mu ni ko dama bëgg nga dimbulee ma ne yàlla dimbulee woon sayyiduna Isa alayhi salaam ndax man nga ko ba ko mbooloo ma kalaamee ni yàlla Isa wooteelu la boppam lay wooteel mu wax yàlla ni ko dama bëgg nga wax xol yi te bàyyi nit ñi man itam dama bëgg nga wax xol yi te bàyyi nit ñi Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo ni ko ning ma foofu daa di andi ab ëmb teg ni ko Babacar tey nga xam ni mer mu far moo gën ngërëm lu far ba ca yoonu ñetteel wa mu ni ko Babacar lëndëm jeex na sunu diggante tey te dootu am mukk loo nekk maa nga ca foo jëmati maa fa wér na lool sëriñ bi xam na lépp waaye ni muy def boo dee seet xam ni li ko waral mooy xam yàlla subhanahu wa lu mel ni daana gaar yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi ba daana wax bu leen ma waxal ci sama saaba yi lenn luy waral may gis seeni xayib yal nu yàlla dimbule ba lépp lu nuy waxal nit nekk aw yiw yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee na abra mbaaj wallahu alam sëriñ tuba xaada lahoo law maxtaar lahoo daana booleeg soxna hawa buso radiallahu taala anha ak ay mbooloo mu leen di faj siiw na sëriñ tuba xaada lahoo law maxtaar waxoon na cër ba soxna faati radiallahu taala anha waroon am ci biir kër gi nañu koy jox soxna hawa buso radiallahu taala anha siiw na sëriñ tuuba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo moo dalal sëriñ muhammadul mustafa ak sëriñ fallu ci fii kër sëriñ Suhaybu nekk radiallahu taala anhu boole lee nag sëriñ loo radiallahu taala anhu siiw na sëriñ tuubaa xaada lahoo allahu maxtaara naa génn jox sëriñ aafiya radiallahu taala anhu ab téere ni ko demal xami koo xam ni bu dundee ko wala lu ko ëpp war naa xam ba bu ko téeméer boobee toppee du réer du leen réeral siiw sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo bi muy nekk ci waaj mas naa wax sëriñ ma jëmb silla radiallahu taala walal kër gi wàcceel ma mbooleem ñi liggéey wàcceel ñi buub wàcceel ñi root wàcceel ñi jaaj ñépp ni leen nañu dem noppalu ji yow mi yaag ñi ma la booleel liggéey bii ma la jox na ciy téye ba gis ma mbaa ma gis la yéen du ngeen wàcc liggéey boobu muy wax mooy jàng alxuraan bis bu set wallahu alam am na sëriif bu masa toog sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw muy bind ba mu yàgg mu am lu mu wax sëriñ bi ni ko lii ba ma yàlla digalee ma di ko def ba léegi yaa fi masa dikk xam ko mu ni ko bi nga koy def xamuma ko dama ko laaj yàlla mu xamal ma ko siiw na ñi ngi ci nettalib téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom ñeent am na ku ñuy wax cheikh ajjuma radiallahu taala anhu Sëriñ Tuubaa xaadalawo lawo maxtaar lawo am na gaal gu def ay téere aku yat ak fu ñuy teg testan xëy na muy dégal waxoon na ni moo ko moom bu leen ko ko yónnee bu leen ko woowi dana ko jël si na ko fi bàyyi siiw na am na ci kilifa yi koo xam ni bu masaana wàcce ab taalubeem da koy jëlal soxna may ko fasow naaru góor boole ko lu mat juróom ñaari nit Sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaara lahu laaj ko loo ci jublu mu ni ko dama leen a bëgg a seexal sëriñ bi ni ko kudul man mënu ko loolu ngoy def koo ko defal bu dee jàmbaar mën naa teral boppam waaye seexal ku demul ca àjjana wallahu alam ma misaal leen ko ci lii ngeen xam mi ngi mel ni fu ñuy jaaye foo xam ni lépp lu ñu war a sol ma nga fa am ku ñëw yàlla boole la moom muy liggéey foofe ba yàlla ni la gërëm naa ko jéggal naa ko bunti àjjanaam mi ngi ci say loxo nga daal jël téere yooyee lu ko jot mu sol ko xam ngee ndawal gu am ñetti fan nu mu tudd ñépp def teg ba mu yàgg am ku ni ko xabbu Sëriñ Tuubaa xaadaloo la moxtaan ne hàkkasa ndax ku ko yor wupp mën na laa teqaleeg weñ ñu ni ko déedéet sëriñ bi ni noonu la mel yére yi ajjana yooyu ku ko sol ruugu nar dem ajjana goo romb dalay topp donte amoo ci soxla siiw na mel na ni waxin wi du ñàkk tuuti ay soppi ndax ni mu koy waxe ñi nettali ku nekk ak waxinam waaye li mu jubloo wax leer na lool dañuy xamal ni seexal def def la buy bàyyikoo ci yàlla subhanahu wa taala waaye nekkul buy bàyyikoo ci nit képp ku ñu ko defal itam noppi naa torox ci àdduna doonul itam luy law di wéy ci kookee la yem mën naa toxoo ci moom jàlli ci keneen bu faatoo waaye tëkkuwul ci xaada yi ci misaal bu ñu ne kii mooy ab taawam du tegtale ni loole nekkoon ci baayam mi ngi ci moom mën naa nekk ci rakkam wala ab taalibeem te mooy li gën a bari ndax ñooy gën a tegu yoonu amin wi wallahu aalam